dale na jàmm mbokk internet yi seen njëriñ TV Barthélémy Dias li nga xam ne moom mooy Cour suprême daal di nay décider ak ci pourvoi en cassation euh, bi nga xam ne nag euh, déposé won ci bobu le euh, cour cour suprême bi rejeté ko ginnaaw ba ko introduire moom maire bu Dakar Barthélémy Diaz dem ci mbir bi nga xam mo doxone doxoon diggante mu njabootu ndam si yalla Ndiaga djouf ak mom meele ñu daal koy fat nak ci ben nak fusillade amone ci mairie boobu bu Mermoz ci atum 2011 haute juridiction bi nag déclaré infondé ñeenti moyens yi nga xam ne conseil yu maire bi dañ ko doon défendre procureur général bi nag moom daal di émettre ab avis négatif jëm ci yooyu les moyens muy rek renforcer décision bu cour suprême boobu lépp yoon nag muy marqué benn étape bu significative jëm ci processus judiciaire bi dox diggante Barthélémy Diaz ak nam si yàlla Ndiaga Diouf boobu ñuy nag leeral nouvelle fois li nga xam ne moom mooy implication juridique ak responsabilité yu maire bu Dakar ci boobu lépp euh, ñaaw teef ci fàttali Barthélémy Dias dafa saisiroon Cour suprême ngir contester décision bu Cour d'appel bu Dakar boobee nag condamné ka ñaari ati yoo xam ne juróom-benni weer yi koy euh, tëdd mu boolee ci nag domage ak intérêt yu ñaar fukki million ak juróom yu mu war a euh, verser njabootu Ndiaga Diouf boobu la pen nag ñu confirmer ko woon en première instance moom mais di bi Dias nag daal dee nay ñàkk li ni mel ndax nag ki nga xam ne moom mooy cour bi moom daal dee na koy euh, delloo li nga xam ne nag moom mooy mbir mi maanaam daal ci boobu lépp wàll amatu ci benn dogal mu nekk nag troisième ak dernier round po bi nga xam ne doon na ko introduire moom Barthélémy Diaz moomule ci boobu po audience nag maître des poursuites déclaré infondé li nga xam ne moom mooy moyen yooyu ginnaaw nag ba mu daldi rek génne li nga xam ne moom mooy décision boobule ñuy xaar nag lan moo ci war a topp ñenn ñi buñ leen wax ne dina ñàkk maire bi ak ay biens ñeneen ñi ne déedéet du ñàkk maire bi de poste député lay ñàkk ci assemblée nationale indil nag ak jafe-jafe Khalifa Sall mi nga xam ne faw mu am fukki député ak ñett ci parrainage yi ngir mu mën a bokk ci élection présidentielle yu 2024 ñuy wax nag ci doobu lépp wàll mais ki nga xam ne moom mooy Macky Sall moom jamono ji dafa nekk rek euh, di éliminer le maximum de candidats ngir mën a xàllal yoon Amadou Ba ba mu mën koo wuutu ci bopp réewum Sénégal